waaw alo alo suma mbokki gambien si suma am di jàmba yi ñi ma déglu ci réew mi ak ñi ma déglu bitim réew man la Samsudeen Sarr ma dellu suwaat tey di samedi di fukki fan ak uh, ñaar fukki fan ak benn ci weeri august 2021 waa tey nag um, samdi la tey nag programme yi bu Jallow bi mu di sunu xalaat Euh, diggéral na dina ko def tey ci ngoon ni mu ko defee rek juróomi waxtu so um, ñun ñëpp dañ stand programme bu neex la dee doon ñun ñëpp ñu bokk ko di ci di ko rafetal um, ma jógee ci loolu nag di wax itam ne fan yi teew naa ci APRC seen sensitisation tour bi ñoo dem di consult in fact dañoo dem pour wax ak seen nit ñi ah, dew ma bu marakisa bi waaye dem naa bu KMC bi dem naa bu banjol bi te ah, li ma fa gis ne suma xol dal na torop torop torop waaw gaay yépp ñu bari ñëw nañ di wax wax yu rafet waaw bu KMC bi nag Euh, kenn rek laa fa dégg ku wax koo xam ne moom mu ne li ko gënaal mooy APRC dem ak UDP coalition waaye Fabakary Tombong Jatta nekk koo xam ne nag honorable Fabakary Tombong Jatta mooy parti interim parti leader bi nekk ko ñor fu mu tam <laughs> tontu na ko de ko wax ne waaw façon yi idea yi lañ bugga ku bugga coalition kay moom suñ ñëwee daje bi yëpp mooy pour ngeen ku nekk wax sa xel waaye lim ko wax itam mooy ne ko ñun nekkul ne APRC ñu dem ci Adama Barrow ne ko dañ bugg a def euh, NPP ne leen dañ bugg a def coalition waaye NPP ñoo bugg a coalition ak APRC yeneen parti yi try nañ waaye demuñ waaye ki leen ñoo approach si ne lañ bugg ñooñu lañ mu ne ko waa su demal nga ne eh, UDP ñu try waaye ñun ñëpp xam nañ ne UDP ah, ñoom liñ gën a bañ mooy APRC ñoom <laughs> leen gënal mooy sax ñu baan APRC soo kooku moom xalaatam la wax am na ñu bari ñu nekk ci parti bi di xalaatee loolu nag eh, coalition eh, NPP waruta am beneen parti lañ ko war a coalition waaye itam xam nga ñoom Fabakary Euh, Rabo ñoom Meyo Koli Bori ñoom Laay Seen gars yàgg nañ ci affaire bi ñoom Papa Liiti ñang gars dañ ci yàgga yàgga boo xam ne xam nañ fi su géej gi réeree fan la ndox mi nekk ak fu mu neexul soo déglu leen daal man daal maa ci seen gannaaw parce que man dem naa fa gis naa fa lu bari ñoo xam ne démba saka bàññul démba kontaan naa trop gis naa fa suma général bi muy Lantombon Tamba wax na fa rek wax yu rafet ñoo fulaani tukulóor ñoom ñu ngi fa woon Mejo Jiiba Keba Jiiba moom itam ci army bi la nekkoon mu ngi def ci mu ngi ci université bi léegi te euh, maa ngi encourage yi soldaar yi nga xam ne you know euh, officers yi nga xam ne you know am nañ bugg nañoo bokk ci affaire bi ñu ñëw di teew ñun ñëpp ñu liggéey ci lii parce que lii fa mu jëm fa moo làndee ji dafa rafet dafa neex moo tax ma kontaan ci trop di wax ne you know uh, yal ci yàlla gën a def jàmm ñun ñëpp ci lañ ci ut mu njubli ci te yëpp ci jàmm jàmmi réew mi la rek parce que twenty uh, twenty one décembre bi élection uh, daf dee indi jafe-jafe ci àdduna yëpp la nag àdduna yëpp la élection di indi jafe-jafe waaye um, te ñu ngi jublu ñoo xam ne gis nañ ñoo xam ne dañ taxaw ne um, suñ ko suñ suñ suñ suñ ko amul niñ ko buggee pare nañ koo yaaxa noonu la politicien mel Amérique sax noonu la mel gis ngeen Donald Trump na mel biir Amérique tey mu ñëw bi pare woon naa tas Amérique parce que pare woon na Amérique xeex waaw waaye yàlla def ci ndox mu sedda ñu ni tam nañ ñaan yàlla ak liñ ñëw xalaat yëpp yàlla def ci ndox mu sedda ñun ñëpp ñu jëriñoo ci jàmm am ci réew mi dañ ci bëgg ñu ñëpp ñu nekk benn waaw loolu nag indi ma ci waxi maa ngi bind benn kayit parce que dafa am benn fan yi passé gaa yaa ngi koo leeral nag ñoom Duudu Jaa leeral nañ wax gi ñoom Rambo Jaata ñoom ñëpp leeral nañ wax gi man nag dama ci bind ci àngale laa ko binda maa ngi ko post waaw ci social media Fatu Network Euh, publish nañ ko foog naa standard itam dinañ ko publish ma ne nag ma leeral leen leen man li ma ci xam ci wax googu wax gi mooy ne dafa am euh, mooy Panderi Touré moom ci radio station lañ am ñu ne radio FM you dama di mistake du dama koy waxee ne paradise la waaye du paradise foog naa ne ñu ne xaw ma ban you ci FM yi la daal moo doon waxtaan ak Adama Barrow di ko préfet politique ñëw ci affaire yi Yaya Jammeh waaye moom moom Pandor euh, parce que dafa use àngale woot muy ne amnesty amnesty man loolu rek ma naxare ci nit ñi da ngaa olof nga dugal ci angale woot boo xam ne nit ñi xëj na duñ ko xam lu miin kof ko rek beeg seen interprétation amnesty sacrifice dafa mel ni bi Adama Barrow you sacrifice you know gaa yi yëpp jël ko xamuñ lu mu miin you know mu ngi kii itam dafa jël mu ne xaaral ma wax amnesty waaye amnesty mu ne ndax Adama Barrow dina jox Yaya Jammeh amnesty moom xam na ne Adama Barrow MPP ak APRC ñu ngay wax mu laaj ko nag kàddu goo xam ne kàddu gu kàddu gu you know gu soof la parce que am na nu ko Adama Barrow doon tontoo nu mu ko mënoon naa tontoo sax nit ñi dinañ ci coow su ko ne woon waaw ay di mburu sax waaye moom sax man dama ne su ma doon aadama Barrow dama koo gàttal ne ko lu tax nga ne ñu ne lu tax ñu ne ngay may man ma war a jox amnesty ci koo xam ne kenn jàpp ko ci dara parce que yaa ngee jox amnesty koo xam ne lu waa daf ko jàppa waa daf ko tëj oo luwaa daf ko tuumaal benn jàppa ne luwaa nangoon ne kii dafa def ñaawteef dafa yàqa-yàqa kooku nga war a wax ne am na loo ko war a joxee amnesty mooy baalu loi baala loi waaye lu mu ko doon wax moom moom laa ko doon wax sa pandéri ma ne ko yow xanaa yow euh, euh, kuuleet li ñoo wax kuuleet mooy naka la tuddaati réeral bi esafa réeral nit ñi ci ndoxam ndox safara sam mooy nàndal ci naan xanaa parce que esafa rek mu gëm ne mu gëm ne tej nañ ko jàppa nañ ko ba léegi criminal la moom la gomloo nit ñi ki ko ñi gom yépp nag xamuñ gom parce que loolu amut you know soo moom pas ndari touré bi de aferi naa wax affaire yi amnesty parce que yaa ngee jox amnesty koo xam ne loi daf ko jàpp su ko président baro émale woon foofu sax wax gi du sori su ko ne ko ne ko waaye pas yow ba xam nga li nga amnesty yaa ngi koo jox ku loi jaay jàmm jàpp ko ci dara su ko emale woon foofu because daf ko bëggoon naa dugal mu wax loo xam ne su ko waxee rek dina jaxase affaire bi te loolu la Adama bi mu waxee sax daf ko wax ne ko lim ko gémma clair mooy ko yëfi yaayaa jàmme bi ekkati nii du affaire yi Adama Barrow moom kenn parce que in fact daf ko TRRC bi ci boppam seen report bi génnaagut loolu rek waroon naa doyal nit ñi ne Adama Barrow koo wax ne Panderi li moo laajte ne xamu ko because wan lifin bi foog mu génn report bi foog mu génn su report bi génnee o report yi uh, TRRC bi su génnee mu àgga ci ñoom moom dina ko taajat nitam yi ñu toog ñu seet ko ndax li ñoo wax ci report bii ak liñ ci recommande nii la noonu nii la war a demee na la war a demee ndax dafa war a jàppalu jaanu sax ndax waratu koo jàppalu number two number three su paree parlement tam bi dina parlement mun nañ koo seet naa national assembly bi ñoo wax ñii naka cabinet mun nañ koo seet ba pare suñ paree moom ci laa war a xëj na xam li moo war a def sax pour ñu génnee white paper white paper bi nag mooy kayit gi mujjee foofu laa war a waxee sax ndax Yaya Jammeh def na ñaawte buñ ko war a jàppee ak buñ ko warut a jàppee muy ko wane ne man loolu du man kenn sax ma am maa maa a wax affaire kiis Yaya Jammeh tey loolu la wax ci wax ku leer nañ yi jël ko Adama Barrow mu ne mënut a jot amnistie moom kenn Yaya Jammeh yaxawaat yëpp parce que xam nañ ne Adama Barrow mu ngi waxtaan ak APRC e ba waxtaan bi man ni ma ko gisee fi mu nekk mu nga ca kaw ñu ne kaleen ñu ko wàcce ku nekk di coow ah eh, Adama Barrow sa kañ yi nekk ci parti APRC e bi te bëgg a bañ ne ad APRC eh, e ak NPP dañ war a nekk benn ñi ko gën a yooyu doon wax sax di coow di fëgg seen waaw lañ doon wax ne yaa jaame dina ñëw ci dëkk bi Adama Barrow moom munu ko soo loolu di leen leeralal leen Adama Barrow mustawa loolu pandéri lim ko laaj war ko woon a laaj parce que amnesty yaa ngi koo laajal koo xam ne dañ ko jàppa ba pare in fact wàcc yoo xam ne sax Adama Barrow ni mu ko tontoo noonu la démocrate di war a tontoo sax you di leen wane leen Adama Barrow ak Yaya Jammeh duñ benn duñ benn suñ buggee seet ni Yaya Jammeh doon doxalee ne Adama Barrow noonu la war a doxalee ha kon de di ngeen am problème parce que Yaya fetel la jël ànd groupam bi ñoom Singaate Saabali ak ñoom Haydara ñu nangu réew mi bàyyi foos ci gouvernement bi fi nekkoon waaw all right dem nañ ba ca digga Yaya Jammeh simeeku na yéreem yi nekk civilian ñu ñu ñu elect mu nekk président waaye mbuba mi la simee waaye xol ba jógoon pour def coup d'état bi xol boobu kéene googu jikko jooju moom la nekkee ci dëkk bi ba bi moo génn ci dëkk bi kenn ñemeñu ko parce que soldat dafa fa jóg nit ñi ragal mu ne foxaat ñett réew mi te kenn ñemeñu koo ca lañ te noonu la doon doxalee aadama Barrow nag moom dañ ko defaral élection dafa dem ñu élect ko mu win dëkk bi ne ko kaay yooyu nga taw fii léegi moom itam mu ngay seet naka laa ci élection bi ko nit ñi taajee foofu noonu laa xalaatee ba tey jii pour seet ne réew mi dina ko yóbbu ci ndigale nit ñi waxi nit ñi ak nu moom ci coobareem in fact maa ngi tooñ suma maa ngi waxtaan bay tooñ suma ñaari brothers yëpp suma friends yi they are the good people mooy Malick mbay ak Ibrahima Sankare ma ne bi ma waxee ne su ma ne su ma ne Adama Barrow dañ ko elect xëy na Malick Mbaye dina ma ne ma ah waaye Sarr yaa waxoon ne ñun ñëpp a wax ne sax ah, IEC bi ñoo sàccal Adama Barrow te loolu dafa illegal ma ne ko ma ne ma bind ci pipa bi di seebe wax ne waaw waaye nag itam Sankare suma frère bi nga xam ne lu nekk lañoo wax dañoo xeex di xuloo di juboo di jë ba tey jii soo ko waxee mu ne la. Yaya Jammeh lim def 1994 dafa illegal warutoo naa nekk président at all warutoo naa nekk leader waaye ñëw nañ ba nga xam ne ñaar ñi muy euh, Malick bay ak Ibrahima Sankare tey mun nañoo toog lekka waxtaan réewoo parce que ci kontaan ne Adama Barrow AP APRC ak NPP ñu ngi bugg a move together tey ki la gën a bugg solidarité bi NPP APRC mooy um, uh, Malick Mbaye ak Ibrahima Sankare ñoo xam ne déggoowuñu woon politique nag moo mel noonu waaye um, loolu laa doon wax ci suma kayit gi politique moo mel noonu. fi ngeen nag doo leen jàpp rek ni fi ma ngànka dama koo dog forever déedéet dangaa seet li la ñor li la li li nga xam ne daf laa yóbbu kanam nga ànda ci léegi nag APRC ak NPP ñiiroo ŋaaraaw ge léegi dañ ne kaay ñu def nekka benn parce que lii mooy mooy suñ moo ñu jik moo ñu yóbbu kanam ñi ko bañ nag yàqakat yi la rek jawara <laughs> bi ko yaaya jaame di jox ne ko kaay ñibbisi ci dëkk bi ñu bari dañ bañoon jawara bu ko nangu jawara bu ko waaye gannaaw gi jawara dafa toog nga xam ne lii dafa sonn dafa ñëw soo man dama fiil ne sax Paa Nderi Touré su nekkoon journaliste boo xam ne dafa xam li moo laajte ba laajte balaa moo wax ja mu laajte yu bari balaa moo war a dem ci baro dafa laajte waa APRC laaj waa NPP yéen waaw yëfi yaayaa jàmme nan ngeen ko tërale ci seen wax gi ne NPP ak APRC naka ngeen tërale yëfi parce que yaayaa jàmme ni fi jawara génnee dafa mel ni noonu la fi yaayaa jàmme génnee jawara dafa dugg a bato dem coup bi ñu ne mun dugg a dem nekkul ne dañ ko jàpp ci ci crime crime or anything mu dem you know jaam jaame itam bi impasse bi tàngee ci dañ ko dugal ci plane mu dem ñoom ñëpp nañ génnee du seen coobare nekkul na seen coobare mu leen fi génnee waaye you know bi bi bi Jawara demee wax naa ko fi dañ doon wax ne Jawara dafa def crime dafa def embes dafa dafa dafa embezzle a lot of money yéen yaa xam moon xaalis bu bari ci dëkk bi dañ sàcca dañ dañ doon def yu ñaaw xam nga time boobu nag soo gisee Jawara time am am sutura time boobu social media amut social media amut WhatsApp amut télévision amut radio nga dégg radio yi you liñ la liñ bugg a wax lañ laa wax liñ la buggut a wax duñ la ko wax you know internet amul dara amul moo tax ñaawteef yi daan tax taayuñu jawara kenn xamu ko waaye ñoom itam ñu ngi amee woon seen ñaawteef su TRRC amoon after jawara bi mu demee bañ seet yi ñoom PPP def 1981 ñu ngi wax ne. Jammeh twenty two years ñu ne about ñaar fukki ña naka um, ñaari téeméer ak ñeneen fukki nit dee ci ñoo xam ne nguuram ngee tax Jawara ci ñaari week 1981 ñaari week lu mu juróom ñetta téeméeri Gambiens rey nañ leen ci dëkk bi ñoo xam ne kenn kippewuñ sax fan lañ leen suul ñan lañ naka lañ leen reyee kenn kippewu ko ba tey ñaawteef googu soo ko bëggoon a seet kon tey ñu ngi ñu ngi doon wax ne ndax Jawara dañ ko war a jox amnesty or not parce que loolu soo ko yóbbu woon la xéeg dañoo ne lii génocide la loolu bi naa ko waaye loolu yëpp amut loolu yëpp ñu tegee ko saay ñu neexalante Béja war ñëw ñu def ko président eh, ex président teral ko bem dee so li ma wax mooy ne su Panderi laajoon NPP mu laaj APRC ne waaw yéen yi digga naa seen waxtaan waa ngeen de parce que xam naa ne wax gi yëpp ci loolu la ko doon jóglu pour seet parce que you ah, xam na ne nit ñaa ngee wax affaire boobu diggante bi naka lañ koo defaree même gën a rafet te li ko gën a rafetal mooy aadama Barrow defal. Yaya Jammeh li Yaya Jammeh defaloon Jawara or even though ku nekk am nga loo sikkee sa morom ni ko doon dinañ ko doon wax ne ko Panderi ñu dey definitely NPP APRC seen wax gi affaire Yaya Jammeh mooy ne li Jawara defaroon Adama Barrow sorry li li jaame defaroon jawara loolu lañ bugg a Adama Baro defaral jàmme mu dellusiwaat ko ci dëkk bi mu nekk ex président mu teral ko ak ex président niñ ko teralee parce que moom itam dina toog bañ na ko ex président lu laa ñaan sax ex président mu toog nekk alive ñu naan la ex président moo gën. ñu ne la mu ngi nii ex président la ko koo ute jox ko moom itam lam soxla suñ ko su laajte woon loolu lañ koo wane ko ñun loolu la gaay dox waxuñ affaire yi amnistie parce que amnistie yaa ngi koo jox koo xam ne dañ ko jàppa Jawara jàppuñ ko woon ba di ko jox amnistie jaami jàppuñ ko ba di ko jox amnistie waaye ñoomi neen ay président dañ leen a seet ndax dinañ seet li ñoo defalante mu dem kanam président bi àdduna si yëpp noonu la ñoo def Obama bi mu toogee in America dañ ko ne woon na jàppa George Bush parce que George Bush moo leen yóbbu Iraq ñu rey fa doom yu dul jeex Afghanistan lu fa jeex c'est Afghanistan ni mel tey yëpp George waaye benn tey yi neen nañ seen naka la ñoo continuer America dem kanam because li ma laa wax rek mooy ne politique moo mel noonu soo seetee tey fi mu nekk yi fi Afghanistan sax ak ni jaxasoo Afghanistan ñëpp a ngee ñu ñu eh, américain si dañ féel américain si dañ lii américain si dañ seen féel yoo de américain si dañ doon try loo xam ne doxul ñu ne nag ngay try loo xam ne doxul nga ne doo ko bàyyi loolooy ndof waaw loolu ku dof mooy dee def loolu nga ne lii dinaa ko every day yaa ngee try pour def ko woogu nga ne doo ko bàyyi di ko continuer loolu mooy ndof Amérique ñaar fukki at mi ngi bugga waa Afghanistan yi taxawal seen boppa alal ku dul deex jox nañ leen ko matériel bu dul jeex jox nañ leen ko waaye ñu ne ñoom pare wu xeex ku bugg a xeex ci dëkk bi daal da nga ñoo xeex waaye ñoom bëggu ñoo xeex l'américain si rek la ne seen problème la te lii yëpp Donald Trump ci boppam moo toppatoo lii yëpp bi moo toogaa moo wax ne moom sonn na ci xeex bi daf cee génn toppatoo woon yëpp mais mais la waroon naa génn Afghanistan moom moo dem saay na talabaan bi daaw balaa moo génn junne talabaan xeexkat la ñoom Donald Trump waxtaan ñu bàyyi leen ci ci prison yi gars jooy ko waaye kenn waxu ko te pare jógewu foofu ñoom li ñoo wax naan waaw gars yi gars yaa ngi nii bañ a léegi euh, républicain si ñu ngi ñu sikka kii naka ñu ngi sikka Biden ne jaxasoo ba nekkaa fale moo ko koos waaw lii dafa mel ni bengaas yi ak waxi nonsense yooyu waaye républicain si biñ leen doon wax ne nañ leen gaaw ñu defal xam nga Amérique seen pour jox la ay visa seen affaire immigration dafa yéex. waaw su pour pour toppatoo la sa visa ak say kayit dafa yéex xay yéex a yéex luy war a mun a jël about one week mun nañ koo jël about three years balaa ñu koo defal soo léegi gars yi uh, uh, Biden bi mu dogasee xam ne ñii dañoo génn ñoom defar nañ ground work bi mu ne ne dañ leen def lu gaaw pour afghan nga xam ne dañ bëgg a génn Afghanistan te ñi ñu doon jàppale. ñu defaral leen visa yu garaaw pour ñu gaaw pour ñu génn si n'importe kan si bañ looloo tax délai bi am léegi nag jaxasoo bi am ñu ngi naan yooyu ñu ngi di su politique a mel noonu ñu ngi sikka Biden wen Biden man dama àndaa moom nag ci lii teex boo xam ne du jeex ba pare talabaan bi problème bu mag a mag a mag ba lañ am man fooguma ne sax. Afghanistan dina successful Afghanistan dina orderly nam orderly woon parce que fi mu nekk coow li sax commencé na parce que Afghanistan ñoom dañ am ay xeet ñoom itam xeet daf leen gitteen pastoon yi ñoo fa ëppa léegi ñu ngee wone pastoon si ne ñoom ñooy rule dëkk bi ñoom ñooy war a nekk président waaw mula xaybatula akun saada kooku war a nekk ak lifin bi pastun la te ñu ngi moom toog yëpp pastun waaye léegi tajik si nga xam ne ñoom itam ñu bëri nañ ñu ngi bokk ci talabaan bi te doon bokk ci xeex bi ak xazaara si nga xam ne ñoom itam talabaan lañ dañ bokkoon ci xeex bi ak uzbek si ñoom ñëpp a ngi coow nag fi mu waane suñ buggee ne dëkk bi nii lañ ko mën a doxalee pour pastun si rek nekk ne ñoom ñooy war a defin ñoom itam duñ ko nangu te gis nga yii la tubaab yi day bugga soo moytuwul léegi tey nga dégg ne tajik si mbaa xasaara si ñu mun a xeex doon nañ di leen jox gànnaay pour ñu xeex ak pastun yi ba pare li gën a soof ci Afghanistan Afghanistan li ko gën a jaxase sax da nga foog ne pour génn bi loolu la Taliban bi xam nañ ne américain si suñ génnee ñi bugg a génnee. Afghanistan seen dëkk ba du baaxati parce que ci ñaar fukki at yi docteur yi gën a baax ingénieurs yi gën a baax technicien si scientist yi loo xelaat seen you know seen airport si seen seaport si computerized system yi digital loo xelaat Afghanistan dañ ko build to a modern country mooy kabo especially loo xam ne su ñuy ñëpp génnee <laughs> jigéen ñi dañ ci bokka góor ñi dañ ci bokka loo xalaat daf ci bokka waaye su ñuy ñëpp génnee daf laa uur ne Afghanistan du dox parce que fetel ak bal ak ne damaa ne rek toog suba ba ngoon di di di wasifa di naafila di jàng alxuraan du ron du bi Saudi Arabia demal Saudi Arabia nga dem seet fa ci dëkk ba yónneen bi sallallahu alayhi wa taala tëgga tëdda demal Iran demal dëkk yooyu yëpp jàngal bu mut set ay scientist lu nekk lañ am gis nga yooyu ne ko ñëpp a ngee daw génn Afghanistan di fa bàyyi xeexkat yi dañ foog ne xeexkat dina sampali fi dafa mel ni bisaaw seen seen seen seen xeex ba bam mu jeexee bi portugais yi génnee lu baax la fa nekk yëpp bàyyi leen fa benn tey Bissau mënuñoo récover te Bissau sax tane Afghanistan ñooñu reyante rek lañ xam ca Alexander di Great ca Alexander xeex rek angale yi dóor nañ angale yi dóor nañ Russian si dóor nañ euh, American si fi mu nekk ñoom xeex dafa nekk ci seen jox leen et short time nga dégg xeexat soo moytu dinañ fa jógale soo man gisuma sax ne. Afghanistan dam lañ am moo tax ñoom fi mu nekk ñun ñooy coow di leen tàccul waaye ñu nga jaaxle dégg naa benn talibaan bu wax sax ne yéen ñii ñëpp suñ génnee dëkk bi naka la ñoo doxalee dëkk am nañu duñ ko mën soo loolu la ñoo wax ni politique you know um, dafa dafa dafa soof waaw soo ko xamut ci nga leen suñ la ne tël nga ne damm na waaye ji ko xam tigi tigi yi dañoo def ndànk ndànk te ñëwaat ci suñu affaire yi condition yi dëkk bi mooy ne ñi xam politique yi dëkk bi ñoom APRC especially ñoom Fabakary Tombong Jatta executive am bi ñoom ñoom gars yi xam nañ politique xam boo xam ne fi jublu nii mooy indi jàmm ci dëkk bi te mën nag jàmm ji ñoo ut ci laa taxaw. ci jàmm ji mooy ni ñun ñëpp ñu form government boo xam ne doo jël a whole bunch of population bi ne dañ leen am sànni fa leen duñ bokkuñ waaw di wax ne APRC ña fa nekkoon di liggéeyal nguur gi dox eh, gaa yi doon liggéeyal yaa jaame ñu ngi ci nguur gi benn tey foo leen bàyyi ñoom euh, finance minister bi Mamour Ndiaye ñoom Omar Faye ñoom Alaaji Cissé ñoom ministre euh, ambas Tangara ñoo ñëpp dañ doon liggéeyal yaa jàmm ñooñu suñu Adama Barrow ne leen daf leen doon sànni UDP sax ak bañ fa nekkee suñ leen sànni woon ñoom ñëpp ci biti ña ak ñoom Sonko mooy interior ministre ña faa taaj ñoo nekk square peg seen round hole su foog nga seet lu baax te xam naa ne APRC am nañ capacité boo xam ne su ñëwee jàppalante Adama Barrow ca kanam rek la ca kanam rek la waaye ñi nga xam ne iida dawoon nañ ñu ngi yàqule yàqa nañ oo ñoo xam ne ñoo daan yàqal yaaya jàmme léegi xëy nañ gis ni sax affaire baa ngi jël substance ñu ne ñoom dañ ko bëgg a jël ci loxo nit ñi yàq ko because yàqalaat ko gisee démb maa ngi dégg benn interesting interview um, koo xam ne suma broda bi muy pamudu mbow moo ko doon kondok moom moo ki ñoo wax Ablaye Bojang mooy former speaker bi ak ki ñoo wax Matar Jaajo ñu ne moom itam MP um, la woon xawma waaye man waxi Matar Jaajo bi laa gi jóg a dégg sax dat façon lañ ma yónnee may ko déglu waaye ñooñu dafa mel ni li ñoo wax mooy ànduñ ci ci coalition bi mu ngi dëgëral nag affaire yi waxi affaire yi ne Ablaye Bojang mooy Ablaye Bojang waaw kooku dañ ko ci war a lii dañ ko ba pare in fact fi mu ko commencé sax moo ma naxari parce que moom mu ngi wane ne ci commencé waxi commencement bi li mu doon wane mooy ne APRC parti bi Yaya Jammeh joxu ko Paa Bakary Tombong ñoom ñoo toog jox ko Paa Bakary Tombong waaye ni ko expliqué. moom mu ngay wax ne ca commencement ba 2017 biñ njëkkee def seen meeting pour ne ñoo seet kañ la ñoo jox pour mu nekk leader parti bi ñu bari ñëwuñ second time bi biñ ñëwee ci lañ ñoom ñu tàkkoor ak ñoom kii ne waaw léegi Fabakary lañ koo jox loolu nag xam nga loolu mooy teeyal xel nit ñi ñëpp d'accord nañ ne Yaya Jammeh mu dénk parti bi Adama kii naka. Fabakary Tombong Jatta soo kii su ñëwee di wax naan Yaya Jammeh dénk ko ko mu ngi yàqal nit ñi seen xalaat waaye ba mu waxee ne bokkul ci coalition bi rek ci laa xam ne rek ci groupe yi gars yi nga xam ne ñoo a yàq affaire bi la mu waaw moom sax ba ñoo jox Fabakary Tombong Jatta bi ah, euh, parti bi moom bëggoon nañ koo def secrétaire général waaye dafa bañ pour jël ko lu tax mu bañ mu ne waa am na ñoo xam ne ñu ko woon. te mooy wax ne juboo de neexuñ ko woon ndax wax na loolu I don't know bañ ko koo wax waaye man ni ma ko gisee téetéet bañut ne because dafa am ñu ko neexut parce que time boobu kenn buggut ñu xam sa sax mu ngi APRC kenn buggut a dugalante APRC ñoom ñëpp dañ taw moom mu ngee fight case yi Ablaye Bojang bi Ablaye Bojang wax naa ko fi waxoon naa ko bind naa ko sax bug bi maa binda maa ngi ko faa explain di wane ne bési élection bi state house bi gars yi compté bañ xam ne luus nañ bañ xam ne luus nañ bi Yaya Jammeh xaw ma di nga gis ci kanami Ablaye Bojang ne kii moom affaire bi dafa mel ni daf ko def ci kontaan foog naa ne moo njëkk génn bàyyi fa nit ñi biir state house da dee ni ma ko ne càkk ci laa ne kii moom kii moom jaaxlewul sax dafa mel ni you know affaire bi dafa nooma mu ne soxat ñi dem ba yoonam man maa ngi fa woon maa ngi koo gis loolu man xam ngeen li ma gis dama ko wax li ma su ma ko waxul dinaa ko binda te waxoon naa ko te binda naa ko ba ñu teg ci ay fan ñu nga seet APRC yëpp ne joolaa yi nekk ci dëkk bi yëpp lawyer Ousseynou Dabo mu make benn statement moom lu tax Ablaye Bojang eloon mu ne joolaa boobu rek la gis ne mu baaxoon ci réew mi littéralement loolu la wax mu jël ko def ko ambassadeur South Africa loolu dafa waroon naa bañ kooku su bañoon ne ko su dee loolu la da nga bëgg wax ne man may di only good joolaa ci dëkk bi mu ne ko man duma jël sa liggéey tey def nañ ko flag bearer parce que dinañ xam ne kii dafa déglu waaye dafa jël liggéey bi toog fa bee Ousseynou Dabo yàqu si diggante ak Adama Baro ba ñoo génnee UDP gars yi ñu génnee waale ko nekkul dañ ko génnee moom because of Joolaa la APRC e non because UDP lañ ko gisee woon ñoom ñu bëri dañ daw dem UDP te li ñoo wax naan APRC e dañ am a wide majority about two hundred déedéet ñu bari dañ daw génn ci pate bi ñenn ñi buggaatuñ sax ana ministre yi ana ñu doon tudd ci di toppa jaabi di tàccoon ñëpp a ngi nëbbu benn tey waaw te ñu bëri ngi bugg a feeñ xamuñ naka la ñoo feeñ mu ne waaw ñoom ñoo li eh, kii naka la tuddaat ñoom ñoo jox pate bi ah, ah Fabakary Tombong Jatta waaye dafa dem ba ca digga mu ne moom sax xamul lu tax léegi nit ñiy wax ndax kana war a ndax euh, kana war a nekk parti leader ak kana warut a nekk parti leader loolu waruñ koo wax at this time sax you know bi mu waxee lii di nasaxal faa Bakary Tandian di wax loolu sax waruñ koo wax ba pare nit ñi dañ war a juboo waaw ñu déglu wante waaw ba pare bi wax ne mujjee di wax nag ne coalition bi moom àndu ci dañ war a def ñun ñu dem contest election bi kanay nekk flag bearer bañ tey kenn du la ko wax because du nekk yaa jaame yaa jaame du mun a nekk flag bearer APRC liñ leen a gëm loolu amul ku leen a gëm kan la ñoo def flag bearer kan xanaa moom te kenn du ko def ab Ablaye Bojang man xaw ma ko nag gis caaju waaye mënuma gis flag bearer parce que moom dafa bañoon bañ ko koo jox ñoom liñ waroon a def mooy dem ci Fabakary Tombong Jatta executive bi ni leen. ñun méegoon nañ mistake joxoon ngeen ma secrétaire général bañ naa kii jëloon nañ ko seppi ko def ko ambassadeur mu jël ko loolu mistake la woon ñun dañ bugg a bokkaat APRC bañ nekkoon ñu bokkaat fa ñu baalalante rek ñu baalu man dama dee wax baalal ma de man su ma defee mistake dama dee wax ay am sorry waaye nit ñu bëri mënuñ ko su defoon loolu mun naa leen a garanti ne ñoom Fambakhane dinañ ubbi seen bunte bi ne leen bisimilah kaay leen ñu continuer ñu liggéey waaye doo leen nekk ci mbedd mi di sànni ay xeer lii parce que yéen xam ngeen ne dawoon parti bi ba moo nasax léegi parti bi yéen a ngi gis ne mu ngi jógaat di taxaw nit ñu ñor ñu ngi ciy dugga ngeen ne da si suñ leen nanguwul ki ngeen dugga si ngeen yàq ko ñi coow yëpp amuñ li ñoo wax waaw politique moo mel noonu te man man duma politicien gis naa rek bokkal nañ ma ci rek te li ma ci boole gisuma la koy wooyee man exécutif bi sax li ma ci boole li ma wax yépp mooy ne ah, ñoom bugg nañ suma liggéey yaa jàmme itam buggoon a wax na ma ne bugg na suma liggéey naa dem bokkaa ñoom loolu ma ci boole te li ma ci gis fi mu nekk bokk naa <laughs> bokk naa te dinaa leen jàppale ni ma leen mun a jàppalee until ñu ne ma saar ñun doyal nañ nag ci say bopp sëy dama toppatoo say affaire waaye dinaa leen jàppale ba fa ñoo dem ñu àgga fa ma continuer di def li maa def parce que man li maa def bugguma koo bàyyi am na lu moo defee sax soo ma jëlee ñu ma ñoo liggéey fële fële damaa bàyyi li maa def su ma indépendance bi dama ko enjoy ba dara taxu ko waaw parce que indépendance dafa ubbi sa xel daf laa gomloo yàlla waaw man suma indépendance bi bëgguma koo risqué dara waaw soo suñ demee bi yëpp sotti ba dëkk bi yëpp màcce ñu ne alhamdulilah yëpp suma indépendance moo ma gënal nga ne nag maa jox naan nag maa de kaay jàppale ma fii because soo ma defalee rek du ma mun a téye da nga maa takka te dinaa ko topp waaw fi nekk nag fi ma way ne daaw mooy li ma doon wax rek mooy ne suma këyit gi ma binda am na ñoo xam ne nag ndeysaan ñu ko riib understanding sax li ma binda mooy ñi nga xam ne mid naka coup d'état bay di Gambia national army ba ma ko bindee riiduñ ko sax ah saar faa ko wéer riiduloo ko ñi ma koo wax yëpp su ma leen laajee ndax riid nga ko dañoo ne ma ah déedéet riiduñ ko ñii ñoom ñoom dañ ne riid nañ ko ñaata you know bëriwul sax about ñaata words la rek about 1000, 1200 words ci suba laa jóg rek about naka maa ngi jóg boor in fact taw bi dafa nee ba twelve laa jóg à two o'clock pare na ko mais post ko gars read, ne read nañ ko am na ci dof boo xam ne <laughs> waaw yow saam saam lu tax nga ne ñu jox ah jabe amnesty foo ko waya ya jami lim ray ci nit ñi bla bla bla ma wat ne ko yow ndax jàng nga school ndax yow dégg nga angale waa naka nga wax ma ne ko demeur leader people bi nga wax ma fan laa waxee ne dañu war a wax jaamee amnesty ma ne ko yow xamuloo li nga ci yow read understand loolu li nga read man waxuma loolu headline bi rek la gis bi ma doon wax ne on president Baro statement of president james amnesty that is the headline bi mu read understandut headline bi sax te li ma ci wax rek mooy ne léegi Barrow wax ci affaire yi Yaya Jammeh amnesty parce que word bi amnesty waruñ koo use sax man xaw ma naka lañ ko waxee ci olof waaye dafa mel ni nga ne jégale pour jégale jégale du du affaire jégale balaa ngaa jégal ku dangaa gis ko la tooñ yaay jàmmi waxuñ fenn ne gannaaw ñoom Essa Faal ak seen rëb-rëb yi kenn waxut ne dañ ko tooñ euh, euh, dafa tooñ lu waa jàpp ko fenn dafa tooñ soo kooku ngaa war a wax affaire yi jéggale soo moom kii ñi riiduñ ko sax waaw li nga wax eh, lu tax ngay wax ne yaay jàmmi dañ ko war a jox am na si ma ne dëgg dëgg dëgg ñoradi am na mu bind ma tontu ko ma ne ko dellu nga seet ndax bind naa ne dañ wax la Yaya eh, amnesty ma gis gaa yi di ko attaque mu bàyyi ma nag di xuloo ñooñu ma ne ko yow xaw ma ban school nga dem waaye soo mënut a riit utal kuy ku mun a riit ku understand li ma binda mu explainal la li ma wax waaye yow xamul mënuloo riit ba pare sax na mu bindee dina mun a wax ni kii mënut a riit so nam doon bindee angale di nga xam ne kii mënut a understand angale waaw mën naa ko wax ma ko yow ni ngaa bindee angale bi nga xam ne sa jàng soriwul mënuloo understand li ma binda moo tax ngay ñëw di xuloo ci suma ko dafa am ñoo xam ne ne xulookat rek lañ lu Sam Sarr wax rek dañ ko war a attaque parce que you am nañ groupe yoo xam ne looloo fa xew Sam Sarr bu leen ko mos a kii yaa jaame rek waaw kii yaa jaame rek yaa yaa lii lii la lee waaye du loolu because dama leen nasaxal lañ yaakaaroon TRRC dama ko nasaxal te dama continuer di ko nasaxal kale nit ñu bokka nekk benn la réew mi laaj doo leen fi mun a ñëw nag di séparer ñii joolaa lañ ñii olof lañ ñii pël lañ ñii lii dafa yàqa réew gambiyan bi gambiyan lañ suma doom ya ñu nga Amérique ñoom xamuñ luñ doon sax <laughs> ñoom you know xam nañ ne rek saar lañ sant waaye xamuñ sax la li woon bi saar miin soo leen fekkee seen famille yi ñoom dañ foog ne sax américain lañ parce que of course américains lañ ñoom ñëpp dañ you know américains lañ waaye su ñëwee Gambia ñoom duñoo gis soose olof in fact dégguñ olof sax olof seen olof sax setatuñ ñoom Gambian lañ day gis Gambian lañ gis moo tax su ma ñaari boy si ñiñ takka sax xamuñ sax affaire yi traay seen jabar yi kii koli la keneen ki jabaram koli la santa keneen ki jabaram drame la santa koo xam ne soo ko tracé route sam te saraxule yi lañ jógee soo affaire bi jaxasoo na jaxasoo moo xam yëf yi traay dafa génn ñi nga xam ne seen xel yi dafa gàtta ñooy toog di wax naan dëkk bii dëkki ñii la dëkk bii dëkki ñële la ñii kan lañ ñële kan lañ waaye xale yi juddu jànga xam àdduna xam nañ ni lii du doxal àdduna soo munul dara xamuloo dara defuloo dara ci ak doo dem fenn waaw gis naa dof yi nga dof yi nekk ci dëkk bi so eh, man Gambia loolu laa doon wax Amérique da gis Américain bi eh man américain la américain nga gis dox boo xam ne da ngaa ne waaw kii su dee lii moo nekkoon su dee nekk américain ni nii la mel ni waa jii la mel oo jigéen jii la mel bugguma nekk américain mëna luñ seen boppa dara ñu ngee wax seetal yi fi talabaan bi ñu ngee waa dañ war a veg talabaan yi seet ndax suñ fi ñëwee duñ fi indi problème bla bla bla waaw parce que la américain si joo gën a mun a créer problème bi américa terroriste yi gën a garaaw américa mooy américain si not a uh, jógee benn benn ay la ñoo nekk rek ñoo ci spanish yi ñoo waa lii la dañoo ñëw yàqa suñu réew mi spanish yi ku leen tax liggéey amut suñ ñëwee américa in foofu soo fa ñëwee nga am métier tegi nga nekk foore na kenn du la laaj ban foog nga jógee parce que loolooy doxal New York soo gisee New York taxaw ci kaw kaw Amérique loolu la gars yi dañ passa loi yoo xam ne kenn du la laaj kayit biir New York soo munee li ngaa def because nit ñu baax ñiy liggéey Amérique ñi ci ëpp yëpp ay gan lañ nit ñu bon ñi bu koy yàq Amérique ñi ci ëpp yëpp américain lañ ay. reet nekk yi léeg nekk ci àll bi proud boys léeg jël seen fetel yi bugg a taar réew mi naan Amérique ñoo ko moom lii munu ñal seen boppa dara man di dem di wax nonsense ñu ñu gën a dangereux ci Amérique dan foreigners yi ñëw foreigners yi ñoo kaa liggéey ñoo faa liggéey moo tax ñoom dañ jàppa foreigners yi ak ñaari loxo gan yi ñëw dañ leen jàppaa seen ñaari loxo xam ne ñii ñooy yóbbu réew mi kanam ba pare every year ñu ubbi bunta di seet moo tax am na boroom xam-xam yoo xam ne am na xam-xam boo xam ne soo ko wanee américain si ñu jënd la waaw ñu jënd la soo demee am seen leen seen télévision bi nga seen américain si da gis cay chinese ku xam ne kii chinese ti japanese tigi la indian tigi la mu toog di la làkka nga wóor na ne kii fii la juddo fii la yoroo te gars ñu ko fay xaalis bu weer tal pour mu toog fi léegi soojoon général bi seetleen ko the current Surgeon General of America Indian la ñoom Sanjay Gupta fu ñu jógee Indian lañ you naka la tuddaati uh, even ñoom Nancy Pelosi mi ngaa gis nii yëpp ñoom Kissinger Kissinger ñoo ñëpp foreigners lañ woon ñooñu ñoo taxawal America soo dëkk bi. suñ ñëwee ni dañoo discrimer kana soose bi kanay joolaa bi te joolaa bi soose bi olof bi o mandinka bi munul dara xamul dara ut leen nit ñu baax ñi ngeen teg leen fa ñu doxaleen leen réew mi loolu looy doxal réew waaw waaye nekka fii di nonsense kii du ñu yóbbu fenn dëkk bi am na leneen lu ko war a ñor toog di xalaat affaire yi xeet affaire lii APRC man ni ma ko gisee te APRC du du parti benn xeet ñëpp a ci nekk man ni ma leen ko gisee fi mu nekk nii ñëpp a ci nekk joolaa yaa ngi fa olof yaa fa soose yaa fa tukulóor yaa fa loo xelaat Poli ñëpp a ngi fa you know dëgg la nag président Yaya Jammeh joolaa la woon te li ma leen doon wax bu njëkk ba joolaa yi booy woon ci politique wuñ leen ci suñ ci bëggoon bokk sax duñ leen daan wan bëti pour ñu bokka ci waa nañ ko fi ne fooji on oppose la fana joolaa yi nekkoon on oppose jawara time am yëpp on oppose la waaye duñ leen daan ubbil bunta ci dara dara bi jàmmee toogee ci la leen ubbil bunta ñoom itam ñu ñëw bokka ci ñu naan dafaa def tribalism waaye jàmmee mus la def benn tribalism loolu mun naa koo watal fu nekka mus la def benn tribalism ñeen cu mboolewul kay moom lañ ci boole te ñu yeloo ne dañ ci war a bokka gars yi fiil ne loolu warut am dañ ko war a bàyyi na meloon joolaay buñ leen boole ci dara maa ngi dégg ñoom aliha aliha ak ñëw ñu bari di di ko dëgëral di wane ne lii laa man dégg naa woy ne li leen fi xam niñ ko waxee sax man jëme ñu ma ko waxee noonu niñ ko expliqué niñ niñ marginalize laa use word boobu nag yéen a loolu laa day wax angale word bi dafa dangerous soo ko understand rek marginalize mooy ñu tegee la boor bokkuloo ci dara loolooy marginalize waaye dof yi nga xam ne xamuñ li ma wax ñu jël ko eh Sam Sané dañu marginalize eh dañu mel ni dama leen ne Sam Sané <laughs> what is marginalize mooy ñu tegee leen boor te loolu lañ defoon politique yi PPP dañ tegee woon joolaay boor. am na ñoo xam ne dañ leen tegee woon boo bokkoon ci woon te ñoo laay ba si lañ bokkoon te li ni lim daan jaral yeneen xeet yi jaralu leen ko woon ñoom itam ñoom it dañ te jàppoon seen bopp rek dañ daan jànga bi ñor xob waaye démba démba am na ku ma doon waxtaanal mu ne ma xaw ma naka am na benn secrétaire général la xaw ma naka jaame tay bi jawara yëpp daf doon wane ne soose la soose la ba jaame ne xam ngeen ne kii du soose joolaa after bi Jammeh nekkee président ci lañ ñemeñ a wane ne seen joolaa di ñemeñ a làkk joolaa ci state house bi ku nekk nag di làkk joolaa di wone ne man joolaa la well it is nice ne ñu ngee wane seen xeet waaye li amoon itam doo ko fi mun a sànni ne loolu dëgg loolu dafa amoon su loolu mooy wax yi maa leen doon waxal tey di leen wane ne APRC fi ñu lu neex na ma NPP APRC e coalition mooy jàmmi réew mi mooy yóbbu réew te xam naa ne su gouvernement bi ñëwee after December dinañ ubbi bunta yépp óor na ma ne UDP ñu bëri nañu dinañ dellu si bokka si ci gouvernement bi dinañ ñëw ne baro ñun jébalu si nañ parti yu bëri dinañ jébalu si ji baro ne ko ah ñu dee try nañ nag waaye bokka si nañ te man su ma ne itam ne baro su time bi jotee doo ko emale ci ni APRC UDP sorry APRC NPP ak ña fa nekkoon ak parti bi ñooñu rek nga taba ci government bi bul ko def affaire yi ni ñu commencé woon seetal ñi nga xam ne sax ci opposition bi lañ nekkoon te on ma ne ñii mun nga leen a jox liggéey nga jox leen liggéey bàyyil doy nag doy soo joxe <laughs> su ma gars soo leen joxee duñ jël parce que man dama ne. as much as ne ñoom liñ bëgg a man dama foog ne ne ñeme ñuñ government ñeme ñu ñoo dugga parce que man dama doon dugga wan leen nii laa ko buggee dinaa leen gunda xatal ngeen ndaxama waaye man dinaa leen wan ne nii laa ko buggee dan ma toog ci biti rek ne ni ma ko buggee suñ ko suñ ko taajadu duma ma ñëw duñ mbokka su bara toogee mun naa jël ñi nga xam ne dañ am ñor ku ñor bu mun nga ko war a ko war nga koo boole ci dëkk bi eh, war nga koo boole ci gouvernement bi mu jàppale la waaw ngeen dem kanam parce que dëkk bi di ko war a yóbbu kanam mooy nit ñu ñor ñi waaw nit ñi nga xam ne dañ bugg a réew mi bugg koo defal ñi nga xam ne dañoo ñëw di use seen xel yi di waxtaan seet lu naka la ñoo demee kanam waaye toog rek bañante waaw kilee fi waxoon kii moo wax lii teg ko ci nag ci dara loo xam ne du yoon waaw te Gambien si wan si génn ma leen a edda moytu leen angale woot si ngeen jël leen di leen misuse di leen jël leen di leen interprète di leen jël kàddu angale di ko taaj foo xam ne nekku fa di ko wax loo xam ne waxu ko waaw amnesty ana amnesty ci koo xam ne mooy mooy jéggal koo xam ne tooñu la <laughs> ku la ku la tooñu nanga koo jéggale loolooy amnistie ni nga ba ja baro ko hey yëfi jégal jaameeg yooyu sax man eggaaguñ foofu ñun yëfi TRRC bi lañ doon wax ñun seen report balaa ñoo wax jégalante ju see lan la def bañ ba su ko jàppee ci ngeen a wax affaire jégalante loolu that's loolu la wax ku nekk ñëpp na jëlaat ko ëlbatiku kenn am jaxase ko ne lii la wax jàppee you know Barrow di woot amnistie man déglu naa ko waxam gi yëpp woot amnistie sax yusu ko waaw dafa mel ni bi moo wax suma doom ji dama ko sacrifice you know tey démba last week maa ngi dégg américain si ñu ngi wax ne ñoom dañ sacrifice almost seen famille si pour dem Afghanistan dañ sacrifice seen famille si sacrifice seen comfort sacrifice seen security sacrifice everything pour dem Afghanistan loolu la bara doon wax soo déggee mu ne dama sacrifice suma doom mooy ne dafa sacrifice safety doomam waaw parce que toogoon su dëkk bi doomam gi dara du ko jot xaj boobu xaj na su waree fom soo gisee doomam gi dem foo xam ne xaj dina ko maata daf ko doon taaj because time boobu dëkk dëkk baa ngi jaxasoo xaj nag dafa amaate li ma laa wax rek dafa coïncide rek lañoo ñoo wax tombe muy indi ay gaaf waaye loolu yàlla ko def yàlla ma ko def li mu ko wax def la wax kenn xama ko ñaanal xale bi rek la so fii laay am ak yéen ak tey ba ci tey ci ngoon you know am naa yeneen yu bari yu ma mun a wax waaye tey ci ngoon you know dinañ am suñ suñu xelaat Ibou Diallo su waxee ba pare ni mu dee defee rek suñ amee taay man itam naa ñëw sànni ci suma kàddu parce que ñun ñëpp a ngee wax di same thing di jéem a pousse di same agenda moom itam mu ngi pousse di aji same agenda juboo ñu nekka benn reconcile président Jammeh baalal ko mu ñibbi si ñëw toog ci réew mi waaye li ma leen a wan rek mooy ne baro su leen expecté ne baro ni Yaya Jammeh doon ronee dëkk bi noonu la war a ronee dëkk bi kon. du ko te su ko staatoon sax in fa keroog wax na incident boo xam ne affaire yi naka la tuddaatee su fifth of December su passé bañ ne wiiw baro yu bari du ko nangooti ci dëkk bi yes parce que dañ lim doon wax soo buggee nara yàq réew mi ci loxoom nit ñaa ngee saaga nit ñaa ngi koo sosal nit ñi pare nañoo soo paree jaxasee réew mi ci loxoom du dof nag moom it dafa dafa dafa fippu ak neex deretam gi yëpp ak toronsam yëpp su eggee foofu ak gis ngeen three years jot na yab ja baro moo taxoon ñu jóg ne ñu ngaa demonstrate yi dem ba bàjju ne dañ ko génnee state house egg ngeen dem tin brick déedéet coow nañ ko jooy nañ ko ñoom Essa Faal yëpp ne ay eh, waratoo naa am waaye you know loolu la am na fa moo em so am na pusanti su fa moo em lum ne laa laa laa béet na degaa tànkaam waaw baro du xëy benn suba rek ne maa nga you bind naa yu bari ci suma suma suma suma lifin bi naka la tuddaate ci suma paper ma binda leen wane rek ne jàmme mu daan doxalee baro ko waaw jàmme baro dafa respect constitution bi baro dafa seet loo xam ne lii su ko defee du ñaawal turam internationally waaw loolu yëpp daf koo seet parce que moom itam loolu la moo tax du mën a jóg rek ne damaa def lii nii moom waxul dara you know ba pare soo leen ko seetloo itam even saa daaw da su ko jàmmee joxutoon ne kaay ñibbisi dafa dee at bitim réew sona rek torox fa parce que saa daaw da taraay na lu nekk biñ ko génnee fii pour tubaab yi jàppale ko àdduna si démocratie bi ñoo wax eh, father of démocratie lii léeg-léeg jawara sumbe loon nañ ko jéema wan dëkk bi la mel fii léegi ni ko doon tubaab yi dinañ ko jàppale pour mu del subaat waaw waaye jawara bi fee jógee tubaab yi dañ génn ci moom de ba set wecc wecc wecc wecc Gambia suñ toogutoon président kii naka la tuddaati Jammeh toog ñu ñu toog a cabinetam waxtaan wutal ko package mu dellusiwaat siwaat billahi ci bitim réew la doon deyee te kenn du ko jàppale këram nga nekkoon Angleterre sax nangu woon nañ ko waaw daf doon toroxi ba dee ñu ubbil ko bunt jama jaame itam mu ngi face the same situation moom it international tubaab yi bu waxuñ ci moom dara waaw international community bi ñu bëri dañ koo ngañña ci li because lim daan doxalee although léegi nit ñaa ngi eewu xam ne jubale jubale àdduna si moo fi sës moo fi baax suñ toogee ba watara nga xam ne dañ ko takka jëlee ko naka kii naka baag boo dañ ko takka génnee ko Ivory Coast ñetti junne ni dee ci xare boobu ñu yóbbu ko ne IEC ICC lañ ko yóbbu tray ko toog bi ne bàyyi nañ ko deful dara demal ñibbi kam doon xeexal muy watara ñu xoogante joxante loxo ba léegi bag boo ngi nii di sampaar pateen nga war a xam ne àdduna soppeeku na soo loolu la ca commencement ba jaamee def lii Essa Faal fu gëdd na bi eh dis moodara dis killa toocoora yooyu àdduna si gis nañ ne sax hey nit ñi sonn nañ ci loolu juboo mooy wax gi billahi bés bu Adama Barrow toogee Independence Stadium mu toog jàmme toog mu jóg introduce ko ne this is former excellence tàccu boobu dinañ ko dégg ba Ndakaaru ñëpp dinañ kontaan te ñun loolu lañ ci jublu loolu lañ bugg a gis ki leen naa wax nag ne jàmme dafa ñu nekkaat président Adama Barrow génne Adama du loolu wax caxaan la de loolu ñu ko wax ay kaco kaco lañ ñooñu ay saret lañ xamuñ li ñoo wax jàmme sax xam naa ne xalaatul loolu ci àdduna it's just like time yi Jawara ñu ne Jawara ñëw jaame dafaa ñëw jaame génn mu dugay state state house am na ñoo xam ne suñ ko amoon tey dañ koo jël ñu bari loolu lañ bëgg waaye loolu du mun a am waaw ma dëgëral leen ko ñun liñ ci séentu mooy càmm ji ne ñooy àdduna si yëpp ñu ngi fi fi mu nekk àdduna si yëpp ñu ngi cee lu ñuy waaw su deful lii def yëpp yi fi caaxaan la àdduna si yëpp juboo lañ bugg gis gis nañ gis nañ li àdduna si def fi mu pandémique bi fi mu nekk rey na ci ñaari at yi ñeneenti million nit <laughs> ñeneenti million nit rey na la ko ne fi mu nekk uwa ñaari million lu ëpp ñaari million ñu ngi ko am ñu ngee try benn tey te pandémique bi demagul benn tey mu ngee ceeñ suñ demee benn jeex mu jógaat suñ demee ni mu jógaat fa mu jëma moom kenn xamu ko waxoon naa leen ko 1918 façon yu pandémique bii am na time boobu nit ñi seen seen xam-xam bariwul nit ñi xamuñ lu bari vaccine balaañ koo xam yi yuroo nit ñi nit ci sonne woon nii rek dañoo dem ba ca kanam nga fatigue def loo xam ne mistake la ñu bari dee parce que mu ngay rey nit ñi weda xam ngeen ko xamu leen ko mu ngee rey nit ñi dëkk bi you know mu nit ñi àdduna si yëpp laa rey gambien si ñu ngi leen a nax naan leen amut ak yooyu dañoo fen mu ngi fi de dafa rey nit ñi léegi xale yi sax mu ngi naa rey bu 1918 bi ñetti at la jël balaa mu jeex rey na 500 million people waaw lu mu juróomi téeméeri million people la rey ci àdduna si pandémie boobu 1918 waaye time boobu nit ñi xamuñ dara munuñ dara communication baaxul garab amul dara amul muy rey rek balaañ koo xam rey rek bug si ko binda Nigeria Ghana Gambien xam nga suñu amoon raytas time boobu ba ñu wax leen ñaawteef bi mu def ci Gambie bi dinañ ko xam waaye time boobu ñu ne amuñ raytas amuñ dara xam nga waaye léegi li ma wax rek moo ne yàlla def ñu ko gën a yombal sax waxuñ bindal sax waaye léegi audio yi programme yi radio yi télévision yi ni ña ngi koo wax ba suñ sitaati sitaati sitaati duñ ko fàtte li gis li ñu am yëpp dañ koo gis loolu la nit ñu njëkk ñu utee nit yi nit yi léegi. waaye soo léegi àdduna si ñëw jaxasoo boobu am ci économie yaa ngee daanu ñuy waxatuñ climate change safara yi tàkka ci àdduna si kenn xamul fan la jógee kenn mënu leen a fay California safara di tàkka ay weer kenn mënu koo fay ñu ngi nii Tunisia bu yàggul Morocco safara safara tàkka kenn xamu ko fu mu jógee yooyu yëpp ñi ña koo xelaat ngeen toog naan waaw Yaya Jammeh you kii dañ ko war a yóbbu rek yooyu foog ne am time Yaya Jammeh amuñ time ñun ñoo war a jokkoo nekk benn yóbbu Gambia kanam ngiiroo ngaaraw bii duñu yóbbu fenn ñun we are two million people Kabul rek ba ngaa wax noonu Kabul the city of Kabul ko Afghanistan five million ñoo fa nekk New York City rek waxuma la Amérique New York City fa ma nekkoon nine million people ñoo nekk ca city boobu ñun mutuñ two million people c'est-à-dire foog ne ñun ñooy ñun ñooy war a si fii la war a jóoroo si taluñ ñu amatuñ suñ ñun war a toppatoo suñ boppa ñu nekk benn dem kanam kenn bu leen tiital international community bi ne lii am nañ lu leen doy set ca Europe America gis ngeen ta léegi Afghanistan mooy seen headache ku leen fa wax ni nag amee Yaya Jammeh mooy seen xiddeeg dañ leen a nax suñ gisee baro toog ak Yaya Jammeh ñu waxtaan nekk benn billahi keroog tubaab yi dañoo ne alhamdulilah solve nañ problème boo xam ne ni di Gambie bi solve nañ seen problème boo xam ne ñun mënuñ ko loolu am Afghanistan Afghanistan 20 years ñu ngi leen a jéem a solval seen problème mënuñ ci dara ñu ne ñii suñ leen bàyyiwut ak seen problème ñun dañ fee dee rek. lu ëpp ñeneenti junne américains rey nañ leen au moins ñaar fukki junne américains gaañu nañ gaañ ñoo xam ne duñ baaxati ci affaire yi ne dañoo defar Afghanistan loo xam ne xëy na waa Afghanistan yi bugguñ ko ñu bàyyi leen nag ñu solve seen problème boppa te ñoom itam suñ demee ba nekk ca kanam suñ sonnee dinañ nekk nit mbaa ñu reyante ba jeexit fii laay am ak yéen wa salaam ba beneen yoon.